jékki-jékki dañoo jékki-jékki parents élèves yi dem ku nekk jël sa doom yóbbu te ñàkkul woon sax rumeur rek la woon te ñàkk bi tàmbali it du du ñàkku covid ma ne la dañoo dégg mm. actuellement nii programme vaccination mm-hmm. ñemewuñu dem ci école yi vacciné kenn dañuy dem ba yóbbaale nit ñi sax te xam nga nag loolu mooy danger bi cest que supplémentation non nee na kenn du tokkalal doomam loolu mooy danger bi xam nga li ma te yàgg nañ ko def PEV nañ ko def e li mu def ci Sénégal mm-hmm. dañ ko war a aar ñi ko ñi ko ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko mën a yàqal dara du sama genre yi nga xam ne dañu ne nañ leen def ndànk non ñun dañuy alerter rek mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñooy jël décision dugal benn vaccin boo xam ne pareegul mm-hmm. su problème vaccination amee ñoom ñoo ko indi mm-hmm. du du sama genre gi taxaw ne ah gars yi nañ leen def ndànk non ñun dañuy alerter rek jëluma benn décision ñu ma vaccin man maa fi njëkk wax ne feebar bi vaccin wala immunité collective maa ko fi njëkk a wax donc man d'accord naa vaccin mais na nekk fekk mu nekk un vaccin qualité efficacité sécurité. et qui respecte toutes les normes. et qui respecte non yooyu euh, normes yi mooy lool mooy clinique euh, mooy qualité non gis nga bu processus bi yëpp pare. Mhm. lañ koy lañ koy labelliser qualité. efficacité sûreté. il faut un il faut du temps alors. il faut du temps il faut du temps te bu ñu jël africain yi pour des cobayes quand même. waaw non xam nga bu ñu taxawee dégg naa kenn mu ne du ñu nangu africain yi nekk cobaye. mais actuellement vaccin bi dans l'état actuel. suñ ko fi dugalee mois de mars ñun d'office on est des cobayes. absolument mais trois mois après ñoom bi ñu démarré. Euh, man daal dama dégg ay responsable ñu ne mars le vaccin bi di ñëw Sénégal. Hmm. suñ ko dugalee mars. mais on va être mais ñoom commencé nañ ba pare nit ñi nekk cobaye ñun. pareegul cobaye ngay nekk. fi tant que mbir yi hmm. leerul. ba ñu am rapport yeeg. ba vaccin bi ñu labelliser ko qualité efficace et sûr. cobaye ngay nekk cobaye ngay nekk. mais léegi lan mooy sa conseil ci par exemple parents yi nga xam ni. Mhm. ragal nañ vaccin bi fi ne nii ba seen doom kenn dootu ko laal. Hmm. alors que vaccin bi dugg seegul. man sama rôle nekkul damay jox ay conseils. Hmm. encore une wala ma wax kenn bul vacciné wu du sama rôle. Mhm. man sama rôle mooy. ma joxe information boo xam ne dama ko teg ci xam-xam nit ñi duñu ay doof ku nekk am nga sa xelu bopp te vaccin dinaa loxo benn affaire dégg naa ñu ne oui c'est pas obli du obligatoire wala ñu ne ku bëgg nga vacciné ku bëgg nga ku bëggul nga bàyyi attention du noon de. Russie de laa dégg ñu ni moom vacciné wu rek mbaa ñu. non non non vaccin ci boppam. mbaa ñu vaccin daj seen lu bon. vaccin ci boppam pour mu def un effet sur la transmission il faut nga am une masse critique de personne dans la population boo vacciné. faut 80 pour cent de la population comme immunité collective la rek il faut 80 pour cent de la population nga vacciner leen. donc mënoo ñëw indi vaccin Sénégal nga bëgg am efficacité sur la transmission nga ne da ngay moins de pour cent de la population les groupes vulnérables non. Mm, mm, mm. xalaatoo ko il faut nga vacciner de la population pour nga espérer am. un effet sur la transmission. ak yeneen effet bénéfique. yeneen ñàkk yi nga xam ne nii na nañu ko def xam nañ ni ay ay piqûres yu baax la ah. et fi mu ne euh, ah. jur yu bëri dañoo ragal yóbbu seen i doom euh, pour ñu ñàkk leen ca ñaq yooyu. ñooñu dinañ leen conseiller xanaa ñu respecter ñaq yooyu ndax euh, ñaq yooyu du ñàkku Covid. Ah, bien sûr man loolu da sama depuis depuis bi ma nekkee médecin de district loolu rek laay liggéey dama doon def campagne fii vaccination polio. Hmm.